n'a pas cessé d'encaisser toute humiliation. Celui qui n'a pas cessé d'encaisser, en tout cas, toutes les difficultés que ce régime lui a imposées. Et elle a, il a supporté avec dignité. Daoul, Khadiwoul. Donc, Koku, Denkoy Sante, Diko Grum. Donc, aujourd'hui, le peuple sénégalais lui a rendu, la monnaie. ici surtout à Ziguinchor. Cette victoire, nous le devons au président Ousmane. Ousmane. Ce qui ouvre, nous en sommes fermement convaincus de très belles perspectives pour le Sénégal et pour euh, l'Afrique donc mbokk journaliste yi maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci seen teewaay mënuma bañ a wax ci victoire bi Ziguinchor am ci élection yi passé ndax Mandiaye wax na ko mais répétition dafa baax bi ñuy waxee campagne bi ñu joxee datu campagne ba bés bi jot booba tey jigéenu commune Ziguinchor ñu ngi ànd ak Mandiam mii nga xamante ne mooy président comité électoral ànd ak JPS mooy maanaam les jeunes di campagne nit ñi di leen ne lan moo tax yéen ngeen campagne te élection amul ñu ne tànk que amul ñoom duñu arrêté campagne booba tey nag arrêté wuñu dugg ci koor gi dugg ci kër yi c'est vrai bëgg nañu jo président Ousmane ko lu mu joxoon ñu def ko mais ñu bëri xamuñu woon photo Diomaye donc ces braves femmes là kii était sur le terrain ànd ak mendiant yóbbu photo yi fu nañu yóbbu photo yi di ko won population yi nga xamante ne xàmmewuñu jomaay looloo waral victoire bi donc jigéen ñi tàcc leen seen di wax ni euh, duma ma guddal na tout a été dit euh, mbind mi euh, mbind mi olof bi am na ki ko moom mooy maanaam le président Ousmane Sonko day baax ñu gërëm sant ko ndax victoire bi mun nañ ko ko dëjee ndax tey moom moo joxoñ moom moo xeex lu ne mu daj ko ci xeex bi waaye dawul xaddiwul mu yenn ko ak dignité ba tey ñu génn ñu dem élection ñi gagné ñi nga xamante ne avec plus de 77 pour cent donc loolu euh, mbégte bu mag la mais aussi honneur la pour ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko ma leen di sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah merci merci beaucoup waaw c'est bon ah merci beaucoup en tout cas merci beaucoup à ne nañu ba jine ba jéggi jine nii taxaw laaj ñu ñoom nekkuñu si campagne ñu ne la ñun dañuy campagne donc ñun dugg nañu ba jine campagne bi daf ñu jaraloon suñu bakkan. pour ñu gagné comme niñ ko gagné nii moo tax tey dañoo fier dañoo kontaan. macha allah macha allah. moom mi demoon na Guinée. waaw. Ah. wallaahi. jaayante bi. bi <laughs> waaw mais kët lii sama kët ma ñëw ma ñëw ma ñëw waaw Abaka. That's it. cool respect c'est très important. Père Dari na ngeen def. merci beaucoup. merci aussi Sonko. merci si Mandiang. yaa ngi ko ko fay. mais ça nga jëfee tey les jeunes.